salaamaaleykum sëriñ Fallou Lo ñu ngi lay nuyu di la ziara di nuyu ak a waa Carrefour FM yëpp rek Euh, mbokki njàmbur yi waa rajo bi yëpp rek ngi leen di nuyu ko quatre vingt dix ak ñi nga xam ne si ñu ngi koy euh, bàyyi xel ci internet bi euh, ci play store bi ndax tamit foofu tamit disponible na fa ñu bari ñu ngi koy bàyyi xel macha allah ngi leen di jaajëfal ci liggéey yu am solo yi nga xam ne si yéen ngi koy taxawaaye ak thème yu am solo yi xam ne saa su nekk yéen a ngi koy sulli ngeen di yee askan wi ñu ngi ñaan borom bi taala taala defal leen ci gën gaa maa gi fay sëñ Fallou macha allah tey ngeen ñëwaat fu am solo foo xam ne si mbindeef yëpp la ñeel rawatina nag euh, ñi nga xam ne si ñoom lañ tuddee ay doomu adama ndax da ngeen di ñëw ci loo xam ne si ay jàngoro la yoo xam ne di ñëw ci doomu aadama yéen tamit nekk ay jëfandukaay yoo xam ne jamono dox na euh, ba yegg ca ñu di ko jëfandikoo di ci am tamit mbir yoo xam ne léeg-léeg mu amal ñu jëriñ léeg-léeg nag am ay ngaañu ci nekk yoo xam ne si euh, duñ ko bàyyi xel bi nga njëkkee mooy benn jàngoro boo xam ne si yaakaar naa képp koo xam ne yaa ngi dund ci jamono rawatina suñu réew mi ñu ak fu bari bari ñu ngi koy dégg muy jàngoro joo xam ne ma nga bàyyeekoo ci siin la ñuy wax ñu di ko wax coronavirus xam naa nga doon ci laaj ay leeral yuñ ci mën a indi xam naa lu yaatu nag loo xam ne xañ na ciy jéem a def ab tënk rek ndax bu ñu waxee coronavirus ñu bari ñu ngi koy dégg waaye nañu xam ne aw tour la rek boo xam ne dañ ko jox mbindeef comme ni may déggee nu nit ñu jox ko tur ni may déggee benn maara ñu jox ko tur noonu la suñu borom bindee tamit benn mbindeef boo xam ne moom la ñuy wax coronavirus ndax doomu aadama yi euh, wala nit ñi laay wax wala mbindeef yi dañ leen di classé di leen jox ay tur ñun euh, ci classement boobu ñun ay doomu aadama nit ñi ngi bokk ci euh, li ñuy wax homo sapiens sapience loolu mooy espèce bi nga xam ne si

boo xam si kenn mu leen a gis ci bët ñu tudde leen ay micro-organisme kon ay microbe moo leen di gis fi mu toll virus yi tey jii euh, ci nattukaay yi ñu yor rek boo doon mesurer millimètre nga xam ne tey boo doon sa graduation yi boo ko yoree sa règle wala daal di tracé muy diggante ñaari ligne yu ndaw yooyu nga xam ne lu ñu tuddee millimètre boo jëloon benn milimètre tey jii nga xaaj ko junni yoon moom coronavirus moo ko gën a tuuti kon loolu bët moom mënu ko gis ndax ndawaay gu mu ndaw pour xamal la rek xam naa kéemaan si borom feeñ na foofu pour leen ne lépp lu am kàttan rek moom moo ko kàttan ndax lu tuut loolu nga xam ne kenn mënu ko gis ci bët sax mooy def jéyee ji nga xam ne ñu ngi koy dégg ci àdduna bi yëpp waaw léegi nag ñoom euh, dafa nekk ay mbindeef yoo xam si ñoom dañ leen leen tuddee ay parasites obligatoires maanaam ñoom mënuñoo dund ci jaww ji nii te nekkul dund ci biir keneen ne ci biir mala dañu nekk ci biir mala di fa dund buñ ci mala bobu dem ci benen mala mala yooyu ngeen jël nak mënu ci ay ot manam réservoir bi xam si leen di yor buñ fa génnee dem dugg ci benen fiñu da ngay dégg tay su amé sibul tay ji dama na dañ nan ma yo mom ko jox su joggé ci yo dem na ci nit su joggé ci nit dem na fiñu ni jang na sibul mu ta nekk lul ci nit bu joggé ci nit dem na ci yo bu joggé ci yoo ñëwaat na ci nit te kenn ku nekk timi la tax mu di fa dem moy dafa am benn pat ci dundam bo xam ci kooku la koy mëna def bu fa joggé dem ci kenen ki eggale fi leneen fa manam defu ngir soxor defu ko ngir bon waaye mbindeef la moo xam ne suñu borom noonu la ko bindee ci moom benn parti moom ci viam fee la koy dundee bu jógee fee dem fi mu mosoo dégg ñu ne yooyu dafa siburu mosoo ko dégg de te pourtant jàngoro ji lay dal ba bañ tuddee ko siburu day dem ci yooyu waaye bu demee ci yooyu la mu fay def du ko indil benn ngaañ bu paree ci foofu tamit moom mooy génnal boppam ñëw ci extrémité maanaam ci beggu yoo bi pour bu yoo bi dee matt bu profité ci duggaat ci doomu adama ndax boobu moom pare na ci yoowa bu paree ci doomu adama tamit moom mooy ginnat boppam nekk ci kaw yaram bi ci maanaam ci deru yaram der der bi fa lay nekk ci vaisseau yi nga xam ji moom moo gën a féete kaw ngir bu yooyu dee matt ngir ko jëlaale ngir mu mën a dem ca biir yoowu def faram fay def léegi euh, virus bi tamit ñuy wax coronavirus Euh, day dund dund gu mel noonu am tamit ci mala yu muy dund yu bari yoo xam ne lim nañ leen ne dana jaar ci ñoom waaye tamit am ay variante maanaam am ay euh, soppeeku yu bari yoo xam ne am na ci moo taxit euh, bu mujj bi tamit fi ñu tey mu jaaxal doomu aadama yi ndax dafa wuute ak yéen njëkkoon a ñëw ndax wan nañu ne rek 2003 hmm, génnoon na fi ñu tuddee woon ko syndrome respiratoire aigu SAR SCOV lañ ko woon jamono jooju foofu ma nga génnoon ci Chine jamono yooyu nga xam ne jotoon na faa faaga dal sax benn doomu aadama diggante 2003 ak 2002 lu ma 650 mort lu ko ëpp sax la ñuy wax enregistré woon nañu ko ci côté yooyu ci jamono jooju ci virus boobu nga xam ne si moom la ci doon virus corona ndax dafa bokk ci famille corona moo tax ñu koy wax coronavirus voilà léegi euh, jamono jooju bi mu jàllee euh, feeñaat na fi ci ay ndax booba booba ñi ngi jàppoon na sax ay njuub soof suli moom lañ tuddee njuub moom lañ jàppoon ne booba moom mooy li nga xam ne si moo koy transmettre maam ci la doon jógee di ci ay doomu aadama booba ci njubul la doon jógee ñëw ci nit euh, ginnaaw bi feeñaat na fi waaye ba mu feeñaatee dañ ko tudde woon syndrome respiratoire du Moyen-Orient ndax booba pàcc bi mu feeñoon mooy côté Arabie Saoudite fa feeñoon te ba mu fa feeñee booba mi ngi nekkoon 2012 euh, woon nañ fa daanaka booba lu tollook tolloog cent morts maanaam lu mat juróom ñetti téeméeri nit euh, faagaagaloon nañ leen te booba ñi ngi jàppoon ne mi ngi jógee ci li ñuy wax giléem dromadaire booba lañ jàppoon ne booba mooy li nga xam ne si moo koy wàlle booba jamono jooju loolu lañ yaakaaroon waaye bi nga xam ne si moo mujjee génn nga xam ne moo génnoon d'abord euh, fële ca Chine ci benn euh, ville bu ñuy wax Wuhan Wuhan la génnoon ca province bu Hubei euh, nekk ca Chine boobu deux mille décembre deux mille dix-neuf la fa génnoon xaj na la mu fa jotoon a faagaagal bariwul mu daal di demaat gisatuñ ko woon euh, bii mujj a génn nag ci mois de janvier deux mille vingt neuf janvier deux mille vingt boobu moom biñ ko xoolee ak forme yi njëkkoon a génn dañu gis ne sur le plan moom dafa am ay soppeeku maam melatul melokaan woowa waaye am na ay mutation yu bari ci am ba tax ñi ngi ko tuddee fi mu ci noo bi ñu ko jox ñi ngi ko tuddee deux mille dix neuf N-CoV nga xam ne tur sax tey jii dafa ànd ak at mi 2019 end koof lañ koy wax euh, nga xam ne tey euh, turu bees bi ñu ngi koy wax maa ngi jégalu SARS R SARS COV 2 lañ ko tuddee euh, ndax ndax ndax SARS ba génnoon ca 2012 moom ñu ngi ko tuddee woon SARS COV bi la ñu tuddee ko SARS COV maa am numéro de code 2 waaye nag joxaale ci 2019 pour wane ne mooy bi génn 2019 boobu nag sur le plan génétique euh, dafa am ay mutation yu bees yu am yoo xam ne si moo tax ba léegi nii doomu jàngoro bi trouvé gu ñu dëgg dëgg dëgg dëgg nan la ñu def ngir faagaagal ko ndaxte euh, gis nañu ne njugub comme jaaroon na ci bokk na ci cible yi ñu jàpp ne euh, moom moo indi feebar bi waaye amaguñu ci ba léegi nii. benn preuve bu leer ne njugub ci boppam moo ko jox doomu aadama tax dañoo gis ne dafa jaar ci beneen mammifère maanaam bi mu jógee ci njugub dafa am beneen mala bu mu jaar bi mu jógee ci mala boobu lay doog a ñëw ci doomu aadama mala yi ñu sible am na ñu waxoon jaan serpent waaye biñ ci gën a ciblé jamono ji ci Chine mooy li ñuy wax pangolin pangolin euh, boo ko gisee dafay am. Euh, benn forme boo xam ne si dafay xaw a nuroo ak li may doon wax mbëtt tey buñ ko doon xool foofu ci njàmbur moom la xaw a nuroo forme waaye niroowuñu parce que moom ci jëmmam boo ko xoolee dafa am lu mel ne ay écorce ay écailles yu mel ne ay waasim tuuri ne ci kawam moom nag dafay far di dundee ay lu mel ni ay sànq lañ lay lekk wala lu mel ne ay max lay dem di seet ci garab yi di ko lekk kon moom day dund ci biir garab yi comme mi ngi nekk ci garab yi tout le temps rek mën nga xalaat ne bu dee dund njugub mën na ko koo moom tamit mu wàll ko doomu aadama ndax chinois yi dañu gis ne tamit ci seenu lekk loolu cee bari kon loolu maanaam itinéraire la rek pour wan la yi nga xam ay jaar la ci feebar boobu noonu proprement léegi nag bi mu duggee ci doomu aadama ni si ay jaar-jaar la ci feebar boobu noonu proprement dit nag bi mu duggee ci doomu aadama euh, gis nañu faagaagal yi nga xam si mi ngi koy def tey fi mu toll li ñu gën a euh, seetlu mooy comme gisaguñu ba léegi nii benn mbir moo xam si mi ngi koy faj kon euh, transmission li ñu gis ne moo koy ku mu dal li mu koy wàllee mooy ne gis nañu sëqat si man na ko joxe ndaxte virus moom dafa nekk loo xam ne du dund ci li dul li ma ko waxee ci biir doomu aadama yi lay dund ci ci biir mala yi lay dund bokk wala ci doomu adama lay dund bu génnoon tay ji ci ci ci air bi nek fu wo fo xamne ne amul dara dañu wax ne daanaka maximum waxtu wala ñaar waxtu bu ko fa amee lay dee moom mënta continuer dund continuellement motax il faut nga laal lu ko jege manam lu toy lu jóge ci doomu adama boobu motax lu melni sekkat fu mu fu ko kooka tifli wala ay noyem yo xam ci si ngelaw lu ngelaw lu lu toy la mëna wax wala fu mu tifli yu mel nonu dana bok ci yoo da koy da koy walé wala tamit lu genn ci mom ci bi yéram rek lu benn direct wala yu mel nonu fu mu la laalé man na la wàll tamit lu jëm ci mbirum euh, feebar bi kon loolu tamit euh, ñu bàyyi wàllu xel bu baax ba fi mu ci walum traitement ci walum diko jëm fajj sax comme amaguñu vraiment benn médicament boo xam ne si wóor na bu ko mën a faagaagal li ñu sukkandiku mooy traitement symptomatique maanaam signes yi la ñuy lañuy la ñuy xool ndaxte ci signes yi yi xam si moom lay moom lay àndal moom euh, feebar boobu da cee bokk wàccu kim dal day far wàccu li sëqat lu bari euh, day am tamit biir bi metti boo xam ne da koy am mm, dañ ko ci constaté lu bari bari biir buy daw tamit da koy dal yaram bi day tàng fu mu toll euh, loolu tamit ay mbir yoo xam ne dañ ko ci ko ci dañ ko ci seetluwaale maanaam tamit ak mooy yem tamit day metti maanaam problème respiratoire ndax ba day laal bopp doomu aadama bi yooyu nga xam ne moom moo ko daal nag maanaam garab yi ñu amoon yi faj yooyu maanaam bu dee amoon nañ garab goo xam ne day faj biir bi daw mën nañ ko jox bu dee amoon nañ garab guy faj wàccu mu yi mu yi mu signalé rek li a xool euh, yuñ ci ko mën a faj yooyu la ñuy jéem a xool waaye luy faj doomu jàngoro ba dëgg-dëgg ba fi nii euh, ay mbir la yoo xam si donc euh, trouvé guñu ko ñu ngi ci jéem a xool nag moo tax prévention bi ci yooyu la ñuy jéem a sensibiliser mooy maanaam képp koo xam ne si gis na kuy sëqat sëqat soo xam ne si parce que période d'incubation bi mooy maanaam bi microbe bi dugg ci sa yaram ak bi muy manifesté wu wax ne diggante juróom-benn fan jàpp fukki fan ak ñeent la ñuy wax ne képp koo xam ne gis nga signe mooy maanaam gis nga sa yaram di tàng wala signe yi ma wax nii nga nga gis ko sa yaram mu continuer dañuy jàpp ne yow man na la dal léegi nag jamono jooju noonu képp koo xam ne jege na la wala mu laal la ah yii ñu wax nii mën naa fexe tamit ba mu dugg ci yow kon prévention bi da ciy bokk nit ki fu mu toll muy góorgóorlu di raxasu di set saa fu génnee ba ñëw mu raxasuwaat bala moo ci gémmiñam am ci am solo euh, képp koo xam ne patient la boo xam ne cible lañ ne même lu mu la jege-jege ak lu ngeen bokk-bokk gis ngeen ne mi ngi am genre si ñu mel noonu euh, ñu fexe ba kooka ñu bañ koo jege ndax jege gi kat dana indi mbir yi nga xam ne si loolu lay yi nga xam ne si moom lay moom lay indi kon daal euh, sëñ Fallou mën nañu ne jéeye la joo xam ne si ñëw na te gis ngeen ni mu toll ni mu tuutee waaye teelu gis ngeen ni mu faagaagal ak ni mu baree euh, kon li ñu mën a wax mooy prévention en attendant ñuy jéem a xam euh, doomu jàngoro boobu kat na lañ mën a fexe ba bloqué ko di ñaan suñu borom tabaraka taala euh, dool ñu kattan dool suñu xel gën ko màccal ba vraiment loolu ñu jéem koo arrêté comme nañu arrêté woon yi nga xam ne si jiitu woon nañu ko fi ci 2003 2002 ak yi nga xam ne ñëwoon na fi ci 2012 yéen lañ dindee woon forme bu bees bi di ñu jéem a fexe noo xam ne si noonu lañ fexe ba vraiment jële ko fi kon foofu lañu yam ci laaj bi njëkk bi dooga ñëw you, Andy